yajlis dana toog àll ci kawam arraakibu aji war ja alxasiyu jooju nag bi fataxil xaaf yi nekk na ci fataa xaaf ga wa kasri siini ak kasra siin ga al muhmalati ga di bu ñàkk tomb al mushaddadati ga di bu ñu sàdda waxee ñoom siyaabun ay yére lañu tun sajooy def na leen ràbbe xarilin ci sooy wa kattaanin ak wateen muxtalitayn yi aji jaxasoo wa inshaadu daalati taarifuha mooy ak xamleem albaraaw bu nu xaasib moo ne yonante bi day dañoo digaloon juróom-ñaar aay juróom-yaar juróom-yaar yam digaloon mooy ku tawat nan ko seeti muy benn ku faat nu gunge janaasa ga muy ñaar ku tifli nu ndokkeel ko sant yàlla nu ne ko yarhamukallah ku waat ni ay yàlla waat naa ci yàlla danga ma defal nangam loolee nga mën ko te ayut nga fexe ba loolee mu waat am ba xolam sedd ku ñu tooñ ñu bañ koo seetaan te dimbali ko ku woote loo xam ne aayut ñu ji ko ak nag siiwal ab nuyoo mooy kun romb rek nuyu ko nu xam kook nu ñàkk koo xam noo ci yemoo ifshaawu salaam mooy ko romb rek nuyu ko moo xam xam nga ko moo xam xamoo ko am na nett boo xam nag moom dafa dugal xam xamle lu réer ci juróom-ñaari njëkk yooyu loolu mooy lee mu ne wa fi riwaayatin wa inshaadi dallati fi safil uwal ku ci gis lóyër mu xamle ko bu baax ba xam borom dana feeñam déet ndax borom jot ca lam na aaya nag moom wurs moo ci jiitu wut jaaro bu wurs aay woon nanu ko ak naan ci ndabul wurus mbaa xaalis ak xeeti ngeenaay mbaa tëpp yooyu nga xam ne dañ ko daan liggéey ci sooy ba noppi nag sol ko rokkos ko wëteen ba mu nooy su ko defee ñu koy teg ca teg ga tegu fas mbaa tegu gëléem di ca toog di ca war aay woon nanu ko li ñuy wax alxas yu ba tey mu doonoon ay xeeti yére yoo xam ne dañ leen daan ràbbe ci sooy ak wëteen ñu jaxasoo ñoom ñaar mooy itam aay woon nanu ko aay woon nanu itam sol sooy moo xam moo xam day sooy bu tal ba moo xam day sooy bu tëlut ba yépp aay woon nanu ko bi nga seeno ci firi baat yi mu ne la almayasir boo weesoo mi nga ci teg ñaari tomb ci suuf muy yaa nga bijjee ko alif dora caa tegaat nag tombañ jamhu taksir la dañ ko daan wutee ci sooy buñ ko defaree ba nopp nag sol ca wëteen mbaa leneen lu ko nooyal te kon ab laltaay bu nooy di ko teg ca tegg tegu fas mbaa tegu gëleem di ca toog alqas yi boo boo ko bind ngay fataa xaaf ji maska ci kaw teg ci siin boo xam ne siin boobu lay doon ba noppi nga sàdd ko door caa teg nag yaaju sàdd mu ne moom xeetu yëre la woon yoo xam ne ñu ko daan ràbbe ci sooy wëteen jaxase leen ñoom ñaar bañ jaxasoo ñu koy ci ràbb incha du daal la di moom mooy xam xamle lu réer rek yëgle ko baabu satri xawraatil muslimina li muy buntub daal awray jullit ña wan nax yi ak tere an ishaahatiha wali siiwal awra yooyee li xayri darurat ñeel lu dul lor day wax ci bunt bi li ñu war a suuturaale mbokki jullit yi bañ siiwal dara lu aay ci ñoom lu yàq seenub der lu muy daa dem bu mënta ñàkk qaala allahu taala inna alladina naka gaa ya nga xam ne yuhibboona danañu sopp an tashiha bu siiwee maanaam bu tasaaroo alfaahishatu aw ñaawteef fi lasina ci biir ñi nga xam ne amanoo gëm nañu lahum ñeen na leen xasaabun mbugal alimun guy aji metti fi duniyaa ci àdduna wal axira ak alaxira nee ñu bon ñi nga xamee ne bëgguñu lu may tasaare lu bon ci biir jullit ñi buñ déggee itam ñuy wax lu mel ne xeeti njaaloo yooyu ñu daal koy lawti lawtee fu ne ñu wax ko fa bëgg a yàq rek darub jullit ñi ñooñu day boo ëllëgee daañu am ci àllaaxira mbugal gu méttee métti goo xam ne sax ci àdduna lay tàmbalee daañu am mbugal gu méttee métti fii ci àdduna ak foofee ci àllaaxira loolu ma nga ci sóoratu nuur laaya ba tolloog fukk ak juróom-ñeent waxan abi xorayrata radiallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wa qaala laa yasturu bis tu daal xabdun ab jaam xabdan ab jaam fi dunyaa ci àdduna illaa satarahu ndari bu ko suturaalee allahu yàlla yowmal xiyaamati bis penc rawaahu muslim Abu Hurayra ne yonent bi nee woon ku suturaal sa mbokkum jullit fii ci àdduna boo léegi yàlla fay la suturaal la foofee ca bis kon sa mbokkum jullit bu defee loo xam ne aay na waaye xam nga ne du ci koom da koo rëcc rek kon nga suturaal ko moo gën nga di ko fésal di ko wax waxtu kenn di ko xam bu dee nag kàccoor boo xam day def lu bon loolee te du ko faale xam ne boo ko suturaay itam da ciy sax di wéy rek moom kon yëgle ko bañ faj ko mu deltu gannaaw moo ci gën wa anhu jël nañ ci abu hurayra qaala sami'tu déggoon naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kullu kenn ku ni sama xeet yi mu xaafan kuñ jàmmal la illal mujahirina ndare way njéeméeral ña lu bon وإن من المجاهرة نك بوك نتي اك جميرال ان يعمل بو جفه الرجل واجا بليل تي غوديغا حملا جف سما يسبها توب دنا خي وقد ستره تي سوسال نكو الله يالا حالي تي موم فيقول تمي وخنا يا فلان يو ديو حملت جفنا البارحه بيك كذا نانغم وكذا نانغم وقد باتت فنانون يستره ديكو سوترال ربو بروم ويسبه موم نك مي خي shif di wuñu sitra lay sutra yalla sa al an holis ko sitra lay sutra yalla an holis ko muttafaqun alayhi abu hurayra ne dig yonte mu ne won kenn ku ne sama xeet yu day yalla da ko sutral di jamal lu may ñinga xamne xam ne dañuy xotti seen sutura bopp mais nag bokk ci xoti sutura su bop def ci guddigi lo xamne xam waa yàlla suuflaan na la ba kenn xamu ko nga xëy di ko nett naa diw man day diw biig damaa def nangam damaa def nangam yàlla fanaane laa suturaal yow nga xëy bëgg xëyee bëgg a yendoo sa suturas bopp dañuy wax ne mboolem xeeti ñaawtee fi nit ki njaaloo yooyu sax bu ko jullit bi defee te xam ne rëcc rek la doon sax lislaam a ngi dox nga xam ne bu demee ñu caw ko ñu caw ko bu ñu rey ko ñu rey ko itam lu gën rek mooy mu suturaal boppam tuub digganteem ak boroomam te bu ko kenn xamut dañ koo wax kenn bu dee nag kàccoor boo xam ni moom buñ ko susaale itam day wéy ci lu bon rek kon ku ko xam na ko wax moom ci boppam it bu mënee xamle boppam ñu teg ko ci yoon wu moo gën wa anhu jële ci abu hurayra ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida sanat njaaloo na al amatu jébbéer ba fata bayanata bir zinaaha njaaloom nga fal yejrit ha na ko dóor alxadd gétan nga wala yu sarrib te bu mu yedd yedd góob xale ha ci moom suma in sanat topp ndeem njaaloo waat na ak saaniyata yoonu ñaari ba fal yejrit ha na ko dóor alxadd gétan nga wala yu tarib te bu yedd yedd góob ale ca moom su ma insana topp ndeem jaaloo waat na ak saalisata yoonu ñetteel wa fal yabiha na ko jaay walaw bi xablin ak doonte ci ak buum la min shaharin ci kawar muttafaqun alayhi at tasribu baatub at tasrib at tawbiixu mooj ak yedd wala yu sarib jeelay wax naa mastara mooy at tasribu muy firi ak yedd abu hurayra ne di gonaayante bi mu ne jamono yi jaam amee mu ne leen woon ko ci xam ne danga am jaam bu jigéen mu njaaloo mu wër la njaaloo na da koy géttan caw ko juróom fukki yar muy xaaju li ñuy caw gor te bañ koy yedd yedd góob njaaloo na nga ko géttanaat ba tey juróom fukki yar te bañ ko yedd yeddu toroxal su delluwaatoo njaaloo mu yett yoon nag say boo xam ne jikkoom la mënu koo bàyyi fexeel tàggoog moom jaay ko donte sax ak buum rek lañ lay fay buum gu bàyyi ko ci kawar rek lañ lay fay nga jaay ko itam jaay ko rek moom day waneen daal ndegam njaaloo na nga gétan ko mu la ko defaat nga gétan ko lu ko defaat mu yetti yoon xam ne kon jikko la say boo taxee moom jaay ko lu njëgg tuuti tuuti baax na wa anhu ba tey jële nañ ci abu hurayrata qaal utiya dikkee foon na annabiyu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi rajulin ci waay xaddu shariba joj naan na xamaran sàngara xaala mu ne idriboohu dóor leen ko xaala abu hurayrata fa min am na ci nun ab daari bu aji dóore bi yadihi ak loxoom wab daari bu ab dóor ja bi naalihi ci aw dàllam wab daari bu ab dóor ja bi tawbihi ci malaanam fala man sarafa ba mu wëlbatikoo xaala wax baxal xaw mi leen ci nit ñi ne ah zaaka na la gàcceel allahu yàlla xaal yonante bi ne laa taqooloo bu leen waxee haka saa ki nii laa tuwayinoo bu leen dimbale xale yi ci kawam ak seytaanu seytaane rawaahul buxaari yu abu hurayra moo ne ma suñoo andi yonante bi benn waay bu naan sàngara yonante bi ne dóor leen ko naka wax loolu ñëpp tàmbali koo dóor am na ci ñoo xam ne dañ ko doon dóori loxo am na ci ñoo xam ne dañ ko doon dóori dàll am na ci ñoo xam ne dañ ko doon dóori seen malaan ba mu wëlbatikoo nag am ku ko wax wax ñaaw naa ko yal na la yàlla gàcceel ne ko déet bu leen waxeeti noonu bu leen dimbali seytaane di ko sotle seen mbokk ndegam def nañ ko lii rek xëy na lii mën nag ko jàjji waaye bu leen ko ñaanal nag naa ko yal na la yàlla gàcceel ak te ne kon seytaane mi koy xiirtal ci lu bon loolu da koy sot ànd ak seytaane baabu xabaay xawaayijil muslimina lii mooy buntu faj soxla jullit ña qaala allahu taala wafaloo dee leen def alxayra aw yiw laxallakum ndax léegi yéen tuflixoona kon dangeen ngeen texe ma nga ca saaru xaj ji laay ba tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar boroom borom ne dee leen def lu baax ndax ngeen texe waxan ibni omara radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal al muslimu ab julit axul muslimi way mbokkum julit laa yablimuhu du ko tooñ wala yuslimuhu te du ko jébbali mooy du ko bàyyi akum noonam man kaana ku nekk fii xaajati axihi ci aajoom mbokkam kaana ko nekk allahu yàlla fii xaajatihi ci aajoom wa man farraja ku wuññ ku wuññ an muslimi walis ab julit kurbatan njàqare farraja kon wuññ allahu yàlla an walis ko bi xaaji wuññ googi njàqare kurbatan njàqare min kurabi yawmul xiyaamati njàqare bis penc wa man satara ku suturaal musliman ab julit satarahu kon suturaal ko allahu yàlla yowmal qiyaamati ca bis penc muttafaqun alayhi ibnu xamar ne yonente bi nee na woon jullit jullitay mbokkam waru koo tooñ waru seetaan di ko bàyyeeg ay noonam te mu ne ku taxaw ci dimbali sa mbokk ci soxlaam yàlla di la taxawal ci sa soxla ku teggil ab jullit aw tiis fii ci àdduna bu ëllëgee yàlla fay la teggil la tiis ca tiis yi àllaaxira yooyee tiis bis ba tey ku suturaal ab jullit bu ëllëgee yàlla faye ko loole su sutaal ko ca bis penc wa an abi hurayrata radiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa sallam qaal man nafasa ku wuññ an mumin walis aji gëm kurbatan min kurabi duniyaa ci njàqare àdduna nafasa yàlla an walis ko kurbatan njàqare min ci njàqare bis penc wa man yassara ku yombalal ala muxsinin ci aji ñàkk yasara kon yombalal allahu yàlla xàlluhi ci moom fi duniyaa ci àdduna wal axira ak alaxira wa man satara ko suturaal musliman ab julit satarahoo kon suturaal ko allahu yàlla fi duniyaa wal axira wallahu te yàlla fi xamdil xabdi nekk na ci ndimbalal jàmba maa kaana li fekk nekk na alxabdu jàmba fi xamni axi ci dimbalek mbokkam ma abu xurera ne yonante bi moo waxoon ne ci àdduna ku fi teggil ku gëm yàlla aw tiis bu ëllëgee yàlla fay la ci alaxira teggil aw tiis ca tiis alaxira yu metti yooyee ku ñàkk itam ku ko dimbale fii yombalal ko niki mu amel la bor benn nga yombalal ko mënta fay ban nga jekki-jekki jéggal ko mbaa nga bañ ko sonal ci fayu ga taw yàlla fay la yombalal la say mbir fii ci àdduna ak foofee ci alaxira ku suturaal ab julit yàlla suturaal la fii ci àdduna ak foofee ci àllaaxira li fekk nga xam ne jullit bi mi ngi dimbali mbokkum jullitam rek yàlla di ko dimbali wa man salaka ku sóobu tariixan aw yoon yàlla tamit su sàkku fii ci moom xilman xam-xam sahala kon yombal allahu yàlla dafa ñeel ko tariixan yoon ilal jannati jëm àjjana te mu ne ku aw yoonu sàkku xam-xam xamal ne yàlla da la yombalal yoonu àjjana kuy sàkku xam-xam te yàlla tax daal xamal ne yàlla sóob na la ci yoonu àjjana te moo la yombalal yoon wa wa majtamaa tasi wut xawmun aw nit fii baytin ci ab néeg min buyutillah ci néegi yàlla yi taxalaa kawe na yet loona di jàng kitaaballahi téereb yàlla bi wa yetta soo rasoo naxoo dañ koy jàngalante baynahum seen diggante illaa nasalat ndare bu wàccee ci seen kaw as sakinatu dal وخشيتهم تمور لين الرحمة يرمان وحفتهم تبيك لين الملائكة ملاكي وذكرهم تتد لين الله يالا في من تبير نغا خمني هنده نك نان فموم في من هنده نك موي اي هند الملائكة والأنبياء مباهاتا بفعلهم وإظهارا لفضلهم mune yonent bi neena won aw nit buñ tassé ci neegu bi yalla di jangal qur'an di jéem a xam la ci yàlla wax ak di ko jéem a jëfe yàlla day wàcc ci ñoom ak dal ak yërmande yërmande muur leen ci wet gu ne malaaka yërmande yi ñëw war leen yàlla da leen di gërëm ba naw leen ba di leen pukkare woo ca kanam malaaka yaag yonante ya di wane ni xool leen sama jaam yi rek li ñuy def nim mu baaxee ana ci man lii wa man batta ak koo xam ne yeexal na bihi ci moom xamaluhoo jëfam ja bu dee ku jàng battu anak fam la wa man battu ak ku yeex bihi ak moom xamaluhoo jëfam lam it say addu bihi ak moom nasaboo askanam mu ne nag jëf rek a takku koo xam ne sàggan nga ba jëfoo lu baax bokk ci askan bu baax du la yóbbu fenn baabu shafaati li mooy bunt tinoo qaala allahu taala man yashfa ku tinoo shafaatan am tinu xasanatu aj rafet yekkun ko nekk la xooñeel ko nasibun ak wàll maanaam nasibun cërub tuyaaba min xaa ca moom ak shafaatu jëf joo xam ne day jàll jariñ keneen mbaa ñeneen man ne ku nit ñu tin ko def ko loo xam ne njariñ la lu bàyyi ko ci yow jàll ca keneen lépp njariñ loo xam ne day weesu ka ko def jàll ci keneen day daldi rëy lool lool loolu mi ci sóoratu nisaa laay ba tolloog juróom ñett fukk juróom mu ne ku tinoo tinu rafet maanaam ku ñoddi aw yiw ak njariñ jëmale ci ab julit wala mu fegal ko lu ko naroon a gaañ te loolee mu def yàlla rek tax mu def ko kon faaw yàlla fay ko ca tuyaaba nee nañu nag bokk na ci li ci gën a sa mbokkum julit teewu nga ñaanal ko ñaanal koo xam ne nekku fi moo ëpp doole ñaanal ku fa teew hadis ba dane man daha li axiihi bi zahril xaybi ustujiba la wa qaala al malaku amiin walaka mislu dalik ku ñaanal sa mbokkum jullit foo xam ne teewu fa te yàlla rek tax yàlla day nangu ñaan ba noppi malaaka ne la lii nga ñaanal sa mbokk mi day yàlla dana la defal lu na toll dañu nangu ñaan ko ba noppi daal kon defal ko moom it lu toll ne loolee mu ñaanal mbokkum jullitam te ñu nangu ko wa an abi muusa al ashariyi radiallahu anhu qaala kaana nekkoon na annabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida ataahu dikkal na ko taalibu xaajatin aji sàkku aajo aqbala mu dëgmal xalaa julasaahi ci ay toogandoom fa xaala mu ne leen ishfaxoo tinoo leen tu jaroo kon def na leen yool wa yaqdi ànd ak buy àttee allahu yàlla xalaa lisaani nabihi ci làmmiñ yonanteem ba ma ahaba la mu sopp muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin am na nettali bu ne wa di allahu xalaa lisaani nabihi macha la ko sopp abu musa ne bu ken mësa am soxla am bëgg ko ci dimbale yonte bi day wax ñafa téwon ni leen lu way man ci keneen bam def lu baax ba koko def aw yiw mu jëm si ci borom aaju ji na def mu am ci tiyaba lim ci teg nag wa yaqdiyallahu ala lisan nabihi ma ahabba sakku lu mbokum julitam ndariñ mo xam fekk na yalla nara dogal loola moo xam fekkul yàlla nara dogal loola ndax mbir mu nekk am na lu ci yàlla dogaloon njëkk tey faw rek moom yàlla fay ko ca aw yiw kam doon tinu mooy kam doon sàkkul njariñ la am kook ñàkk am ama ci yam moom ci boppam moom faaw rekk yàlla fay ko ca tuyaaba wa an ibni habbasin radiallahu anhuma fii qissati barirata ci qissa barirata wa zawjiha ak jëkkëram ja xaala mu ne xaala wax la xaañeel ko annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam law raajaatihi cey boo delloonte xoon ak moom xaal mu ne ko yaa rasulallahi tamuru nii ndax danga maa digal xaal mu ne ko innama ashfahu naka damay tinoo rek xaalat mu ne ko laa xaajata di soxla lii di ma ñeel fii ci moom fii ci sama jëkkër jooju rawaahul buxaari yu ibnu abbas ne jigéen ji ñuy wax baridata ak jëkkëram bañ am lantee yonente bi dañ ne baridata cey boo nangoona dellu xanteeg moom ngeen àndaat mu ne ko danga ma koo digala mu ne ko déedéet dama lay wax rek bëgg ngeen defaroo waaye du ndigal bëgg rek aw yiw gaaral la ko ba xam nooy def rek la waaye du ndigal mu nekk nag kooku daal moom amatuma ci moom soxla muy bëggatuma ko baabul islaahi lii mooy buntu defar bay na naa si diggante nit ñi qaala allahu taala laa xayra aw yiw fii kasirin di nekk ci lu bari min najwaahum ci seen ndéey illaa man dara koo xam ne amara digle na bi sadaqatin ci sarax aw maaroofin wala njekk aw islaahin wala defar bay na naa diggante nit ñi suñ borom ne lu bari ci li ñuy déwénteeg waxtaan day amul solo la ci am solo rek mooy wax lu jëm ci saraxe mbaa defal kenn njekk mbaa wax luy defar diggante nit ak moroom ma mbaa diggante ay nit ak i nit wala ma nga ca suuratu nisaa laay ba tollook téeméer ak fukk ñeent xaala taxa laa war sulhu yéenoonte xayrun moo gën defaroo moo gën bañ a defaroo ba tey la ma nga ca suuratu nisaa laay ba tombeeg téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett wa qaala taala ragal leen allah yàlla wa aslihoo te ngeen defar daata baynikum jëmmi si yéen diggante ay xaqiqatama baynakum bil mawaddati wa tarkin nisaa ma nga ca al anfaal laay ba doon ba ca jëkk mu ne ragal leen yàlla te defaroo ci seen diggante soppante te bañ a xëccoo wa qaala taala innamal muminuun na koy gëm ñi ixwatun ay mbokk lañ ci diine ak ci yàlla fa aslihoo kon yéwénal leen bay na axawaykum diggante seen yaari mbokk wala ma nga ca alxujuraat laaya ba tolloog fukkeel ba waxan abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sulaamaa bépp yax bina naas ci nit xàllihi war na ko ca sadaqatun sarax ku leewin ci bépp bis tatlux boobu dana fenk fii ci moom asam su jant ba boo xoolee asulaama ci sara bi mu ne asulaama bi dammi siini wa taxfiifi laami asluhu izaamul asaabii wa saairil kaffi tumma stumila fi saairi izaamil badan wa mafaasili asulaama dañ ko daan wax yax yi baaraam yi ak yax yi téngli gannaaw bi ñu koy jëfandikoo ci mboolem yax yi nekk ci yaramu doomi aadama ak tengo yi ñett téeméer yax ak juróom benn fukk yonente bi nag ne nit ku ne war naa ku ne war naa góorlu ci bu xëyee mu def ci lu baax lu toll noonu li nga xamee ne daal mu am ci ay yax ñett téeméer juróom benn fukk na ba def lu baax li bu toll noonu saraxe sarax yu toll noonu dagam alal du ñëpp ko mën a am mu daal wax na yu bari yoo xam loo ci def rek mu taxaw taxawaayu saraxe dal ne temps di lu danga nga danga da nga defare bay na seen diggante ñaar sadaxatu loolu sarax la waatu in te ngay dimbale arrajula waaja fii daabatihi ci daabaam ja fa taxmiluhu te nga koy waral alayha ci kawam aw tarfaf mbaa nga yëkkati la ñel ko alayha ci kaw daaba ja mataaxahu bagaasam loolu sadaxatum sarax la wal kalimatu baat ba ab tayyibatu bay aji teey sadaxatum sarax la wa bi kulli xutwatin nekk na ci bépp jéego tamsiha ba da ko dox ila salaati jëm ci julli sadaxatun sarax watoo miitu da ngay dindi al alta lorja ani tarixi wala si yoon wa sadaxatun sarax la muttafaqun alayhi wa maana taadilu baynahuma mooy tuslihu da nga defare baynahuma seen diggante bil adli ci maandu ndegam alal moom du ñëpp ko mën a mu ne bari na yoo xam loo ci def rek mu taxaw taxawaayu saraxe boo defaree diggante ñaar ñoo xam ne dañoo amoon ak ñàkk déggoo loola nga ci am tuyaa bay saraxe nit kuy bëgg war ci daabaam nga yëkkati ko dimbali ko mu war mbaa nga jël bagaasam tegal ko ci kaw daaba ja wala bu dee léegi oto mbaa lu ko nuru loolu taxaw na taxawaayu saraxe wax baat bu te yàlla tax daañu li ci bindu tuyaa bay saraxe bépp jéego boo soqi jëm ci julli ne jéego ya toll mel eh, saraxe nga sarax yu toll noonu boo fekkee lu mën a lor ci yoon wi muy aw doj muy dégg muy bant nga toppale ko mu daal di taxaw taxawaayu saraxe am na fu ne woon sax boo jullee ñaar rakka yoor yoor mu daal di wecci yooyu yëpp taxaw taxawaay yooyu yëpp waxan ummi kulsoomin binti huqbatab ni abi muayt radiyallahu anha qaalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu laysal kazzaabu déet fenkat ba allazi muy ka nga xam ne yuslihu dana defare bay na naas diggante nit ñi fayan mi te mu yokk xayran lu baax aw yaqulu mbaa muy wax xayran aw yiw muy lu baax muttafaqun alayh ummu kulsoom mooy dàkkental wi muy doom bu jigéen ñi xuqbata ibni abi muayt moo ne dégg bi mu ne ku bëgg a defare ay nit wax ci lu amut loola du fen lam ci wax ci amut yokk ko ca ngir defare du fen mbaa du fen wu aay wa fi riwaayati muslimin nekk na ci net li muslim ziyaadatu ndolleen xaalat mu wax ne wala asmahu mësuma ko dégg yura xisu muy yolomal fii che in ci dara mimma ci li nga xamee ne yaquuluhoo dana ko wax annaasu nit ña illaa fii talaasin ndara ci yett الاستقطاعني دنا جبلو الحرب خري والإصلاح الدفر بين الناس ديكنتي نتني وحديث الرجل أك وقتان غور امرأته سخنام وحديث المرأة أك وقتان جيجين زوجها جكرم أمنا نتلب مسلم أندي يقتلي لسخنا سيدا وخوني مسما ديگ يرونتي بي منانغو كو وخ دار julli nuru fen lu may ci yett yi muy birum xare ak defare ak defare ab diggante ak goor ak soxnaam lañu séq loolu motax ñu na kuy defare diggante ay nit dagan na wax ci lu amut fi lu da ci bolé xare manam tassé yéfer bi wax ko nu julit ñi bare ak ñu amé ngannaay ñu ndax ko ba sax ko boole fii ci nga xam ne sañas na caa fen am nag ñaar ñu seq ab sëy kenn ko wax moroom ma loo xam ne amut waaye bëgg ñu juboo seen diggante neex rek moo tax mu wax loola waaw loolu it sañas na ko nee nañ fen la waaye bakkaar amu ca waxan ha Aysata radiyallahu anha qaalat samiha déggoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawta xusuumin kàddu way xuloo bil baa bi ci buntu ba xaaliyati di aji yëkkatiku aswaatuhuma seeni kàddu wa ida ahaduhuma am ci lu may kenn ci ñoom ñaar yastawdihu dina sàkkoo sippiloo al axara ka ca des wa yastarfiquhoo tam koy yërëmtaluloo maanaam di sàkku ci moom mu yërëm ko fi shay'in ci dara wax wate moom yaqulu ma wax naa ko wallaahi waat naa ci yàlla la afal du ma def fa xarajate génn alayhi maa ci ñoom ñaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala faqaala mu ne ay nal muta alli ana kan mooy aji giñ xalalaa ci yàlla naa laa yëf xalu du def almaarofa njëkk faqaala kooko ne ko ana yaa rasulallah waaye nag fa lahoo ñeel na ko ayu zalika lu mu ci loolee ahaba la bëgg muttafaqun alayhi maanaa yastawdixuhu mooy yasaluhu dana ko ñaan ay yabaxa mu sippi an walis ko ba'da daynihi lenn ci borom wa yastalfiquhu te muy sàkku yërmandeem mooy yasaluhu dana ko laaj a ak wal mutaalli nag alxaalif mooy aji giñ soxna Aysa ne yonante bi daa déggoon ñaar ñi nekk ci bunt bi seen kàddu xumb lool kenn ki di liwaayu moroom mi naa ko ay waay ji li ma la ameel wàññil ma ci nangam wàññil ma ci nangam kooku di waat naa ko waat naa ci yàlla du la ci wàññil dara dara yonante bi kenn